asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñoo ngi nuyu ñëpp xam naa dañuy dikk rekk ci benn laaye biir ci naka lañuy aaroo ci wàllu grippe wala lépp luy xeetu virus bam bañ laa dugg surtout jamono ji ñuy coow coowu virus waaye naka lañ koy traité wàllu grippe yooyu di sonal niñ ñi euh, ak soble soble xam nga ñun yàgg nañ ci def waxtaan euh, boo gisee soble mën a aar xëtër poumon soble dafa am li ñuy tuddee soufre soufre boobu nag dafa am jeexantal bi muy def foofu ba su dee yaa ngi koy jëfandikoo rek virus du mën a ñëw yàq say say xëtër waaw su dee da nga ko di ko jël yàgg nañ ci def waxtaan waaye bii xëy na musuñ koo wax naka lañ koy defee da ngay wut doomu soble bu mag xolli ko fexe ko frej nag frej ba mu sew ruuj nga wut sa benn butéelu verre bi nga xam ne am na kubéeram day tëju nga def ci biir nga wut lem bu pur lu mat digg kaasu lem kaas kaas gu mag waaye digg kaas nga sotti ko ci kaw soble boobu nga fere joon yëngal tëj bàyyi ko fa nag mu nekk fa lum néew néew fukki waxtu dix heures de temps su loolu matee rek su dee yow jamono jooju yaa ngi grippe ci yow wala soj bu la sonal danga ci jël ko dugg mag soo ndekkee soo añee soo reeree su dee nag loolu dara dalu la ci mais da ngaa ragal xëy na grippe yeeg wala yenn xeeti virus yi dugg la saa yoo xëyee rek jël jël ci kudd kudd kudd gu mag kooku pour prévention la ki amee jàngoro mooy jël ñetti yon pour bés waaye ki dara méttiwul te mu ragal yenn xeetu virus yi ñuy coow ci jamono sonnal ko heure bu xëyee rek na fexe loolu jiitu ci biiram waaw mun jël ci kudd kudd gu mag ku dugg mag kon nag eh, moom lañ indi woon daal bëgg koo baaxee suñu bopp baaxee leen ko waaw ndax dañoo toll ci jamonoy prévention waaw kenn ku nekk jàmbat grippe am na sax ñu ko tuddee leneen ne du grippe leneen la waaye lañ ci xam daal mooy ku ko topp daal incha allah mën na laa aar waaye mën na laa faj asalaamaaleykum wa rahmatullah